salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar leen joxaat seen wàccu waay boo déwél di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ñaan way dawlu yi suñu borom yërëm leen te xaar leen te àjjana firdawsi ñu feebar tëdd ci hôpital yi ci kër yàlla suñu borom fëgg seen borom rawatina caabi féetee ginnaaw yàlla suñu borom may leen liberté ndax liberté dara daax ko ñaan senegal jàmm bu baax a tey nag ñëw seet si xale mu jëm si le 22 janvier mu journée Jax production Liss Ndiago Ardo mu war see bërek doomu sowaal bi muy caatu Aïda moom ñu seeti tan Daouda Fall 2 dara fa nuyu naa la. Idi maa lay ziar bu baax di la bëggee di la di la jox sa wàcc waaye di la nuyu di xam nga di nuyu sa cameraman bi di nuyu waa Gudul Balaga di nuyu waa Sam nuyu waa Géejawaay di nuyu waaw di nuyu mafia Balañ bi di nuyu waa Géejawaay yëpp daal waaw. Dara Fall. nga tax nga jël xale bi nga xam moom la ñëpp bàyyi. mu caatu Ayda. waaw mais làmb noonu la làmb làmb xam nga soo bëggee avancer da ngay jël xam da ngay jël xam nga ñi fi ñëpp soo bëggee dem. xam nga pour man quoi waaw. mel ni avance dañ la joxoon nga delloo ko. non mosuma ko delloo. non mosuma ko delloo. <laughs> mosu ñëwoon na fi nga delloo. mosuma ko delloo c'est que gars yi xam nga gars yi bu gars yi xam ne gars yi ñoom ñoom bés xam nga ñoo ko bëggul rek mais man maa ko jël sama bop man. mosu ko jël ji woon xam nga delloo ko man man man xam nga maa ko jël ji waat nga xam nga ci mbës. avance na fi génn duggaat. non duggoon waaw. mais du man xama maa ko génne. Hmm. non non du man maa waaw bi moom ne ko maa ko jël ji ne maa ko fi dugal bu soobee yàlla. moom soo gisee mu jël la dafa am reer bu ngeen soon këpp moom seen kër moo tax mu jël la. mais loolu xam xa man loolu loolu xam ne ko loolu noonu xamat ñoom xamat xam ne ko seen reer la quoi mais en tout cas moom combat bi ne ko sama combat la man ak moom xam ne ko xam xam ne ko na si génne yeneen gars yi quoi man ak moom xam ñooy bëre waaw ne ko le 22 janvier. Thiatou Adama koo ñaar mu moom nee na nee na bu jour baa nga bëgg xeex di nga xeex nga bañ xeex di nga xeex loolu moom xoola gëm naa ne xoola li li ma yëpp xam na ko dara amu ci moom du xeex day ñëw naxante daw jàpp bëre fan nga wég ne du xeex waaye man dama seetaan ay combat am six combat la dama seetaan ay combat am combat yëpp xam mosu si xeex day ñëw dóor benn góos xam nga daw kii nag ma doo jàpp la daan la dama koo xam bu baax baax daa mel ni jàng nga ko de jàng naa ko baax sa guddi sa guddi xoola presque xoola xam nga xool moo laay seeraan quoi. Hmm. waaw sa guddi gaan xam nga nag moo laay seeraan. nga dégg li mu wax mu ne sixième fii la ko teg biir Guédiawaye. non na ko teg feneen man maa ko fi jël bu soobee yàlla man maa ko fi jëlee. nga wax loo gëm la wala luñ la doy la wala. maa gëm sama bopp maa gëm ne làmb ji dama koy daan dama koy duma dama koy daan bu soobee yàlla. nga duma caatu ay da. dama koy duma dama koy daan. billaay walaay. sama gëm-gëm la sama gëm-gëm la. détenteur nga bëgg a duma de. làmb ji musuma see xool xoolal làmb ji xoolal zéro pression zéro pression. su fan yii passé. waaw man loolu jaaxaluma non loolu jaaxaluma dëgg yàlla. dafa ay si poids lourd. Ah, ne moom dëgg yàlla moom xam nga bi dama ca wàññi poids bu baax a baax ngir mën a bëri moom xam nga ni fii ndaanaan fii moom xam nga fii la naraan xam xam fii la naraan xam soqee ko quoi bu ñeen naraan rek xam nga xool xam nga xam nga si si la naraan xam soqee ko hmm. waaw na ko dëgg yàlla moom. nee na moom ñi muy daan si simple bi yow yëngaloo mënul leen yëngal sax kon yow benn combat yaa si diggante ak moom taxu koo jóg. waaye moom simple na ko dañuy buuxante rek. dañuy buuxante rek wax yàlla. Ah, buuxante boo xam ne foo dem final wala dem final. dañuy buuxante jamono ji ñu toll fa ne ko dafa yomb da buuxante ba am xama say point ab xama xool jox la victoire. Ah, moom day bëre de. non bëriwul day. xam caa xam ne day bëre John Lass. day buuxante bëriwul man seraan naa ko bu baax. seraan nga seraan nga ay combat seraan naa ay combat am yëpp. seraan combat arène ñoom. six combats yëpp si daan naa combat yëpp benn défaite la am. bii mooy deuxième défaite am nag. benn défaite la am bu ngeen nii rek ma ko daan. bii mooy deuxième défaite am. Eh? bu xeexee ma dóom ma ko su bëree ma daan ko. bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama quatrième combat. ñaata victoire. bii mooy sama troisième victoire. bii mooy sa troisième victoire. troisième victoire. bii nii mooy sa troisième victoire. bii mooy sama troisième victoire incha allahu rabbi le 22 bii. yéen ñaa ko du benn défaite nga am. waaw benn défaite. waaw loolu du neex a lijjanti de. ah en tout cas daal le 22 moom mooy du ma may daan moom Joal lay ngeen ñëw. ah man de fii laa ngeen damay dox dem stade. sa nee li fay taaru lépp moo koy def. non non mënul nekk mënul nekk moom daa wàllu yaan si man fii laa dëkk sama toolama mi ngi fii arène nationale. Eh. waaw amee añ ba suur ànd sama supporter dem jàpp ko duma ko daan ko. keroog ñu gis signature ba mu ne ragal moo tax ñëw. non signature ba dama amoon xam benn gaan xam nga moo gaañu woon quoi moo tax ñëw ma. amiin waaw sa benn nee moo tax signature boo ñëwoo. non man amul ma ragal ci moom moom laa gën a ñeme ci mbër yi. yaakaar la mu waxu ko. Thiatada gën a ñeme ci mbër yi le 22 naa la duma naa la daan boo xeexee ma dóor la daan daanu su ma jàpp la daan la. Thiatou Aida nga taxaw sa mbokk moom jixaat. billaay wallaay amul lu may tiit ci moom. amul amul lu may tiit moom laa la wax. Hmm. non non. bu xeexee. bu ma duma ko su bëree ma daan ko. wàllum mobilisation foo si toll. sant bi kay moom macha allah. macha allah moom xanaa di woon nag xam ay grand Pape Gueye xam nga ay grand xam nga ay grand Vieux xam nga di woo Pama ma xam ci combat bi xam nga di woo mafia yëpp nag xam nga mafia Sambi xam nga magasin Top Paax Baye Moussa xam nga boppu Coor xam di woo ñëpp daal ñoo xam nga téye bis bi. téye bis bi waaw ma jàpp caa du ma ko daan ko. waaw mais xale laa nag. waaw nag am doole macha allah. loo koy yóbbante sa kàddu gu mujj. donc jour daal bu fa nekk xam nga di cëpp cëpp na taxaw na ko dëggal boppam ma jàpp ko daan ko bu fa nee di jéem a kii dama koy duma du daan ko. da nga jàkkaarloo mu ne nga xam ne nga ñeme nga jàkkaarloo nga ko ko. waaw mais man amul métti a ñeme ci mbër yi moom caat ay la. moom a ñeme ci mbër yi. le 22 yëpp ma ah, waxoon di nga ah, ci man sax. ah waaw ci man. ak ay yow. ak ci man kay ñu ngi lay remercier la wax Jax production. Jax waaw xanaa di ko sant bu baax a baax xanaa bii mooy sama premier xam ma combat xam nga ndaw bi mooy tëggal. Mhm. waaw donc maa ngi koy bu baax a baax nag waaw. pare nga pour mu tëggaat la yeneen combat. pare naa waaw waaw naa xam nga pour mu tëgg ma grand combat. xam nga li tax muy la tëgg. waaw mu public bi. Ah. man sama woon ay jàppale maanaam ñu ma jëlal ticket yàlla xam na ni dépassé naa kol fii yëpp problème mu xam nga jàppale laa am. mu ñu jën a xama ñu ma jën a xama xam ma xool ay bolok quoi mais su ma woon carrément xam ñu ma jën ay bolok yàlla xam ne ne xool passé fii bu yàgg billaahi ñu ngi lay remercier bu baax baax. waaw waaw non maa la sant bu baax di sant xam nga Kousou Lamine Faye xam nga di sant xam nga di sant Mbës xam di sant waa école Balla Gaye bi yëpp waaw waa waa xam nga di ñaanal xam nga ñu amul combat yàlla may leen combat waaw xam nga yàlla may leen ndam waaw bu soobee yàlla. di bëggee waat ñëpp rek di ziar di bëggee nag kenn si man Seri Xaj Jaañ kalaamu Moussa maa ngi lay bëggee bu baax a baax di jox sa wàccuwaay di la wax yow dundal sa dund am na njëriñ si xarnu bi di la bëggaat bu baax a baax Seri Xaj Jaañ loo dund doyul. waaw Moussa Thioub nag maa koy sant bu baax a baax nag waaw sama mi d'enfance sama sama gànnaam sama lépp mën naa leen sax moom moo doon xam nga depuis temps booy maa xam nga xam nga moom xam nga bu baax a baax xam xam nga moom ñu nuyu tamit xam nga waa Waalo ñëpp xam nga xool bàyyi ma kenn waaw jaajëf waay jaajëf Idy